warul ànd ak ay ak ay parce que yërmande weesuwul si moment bi nga xamante ni ñaari nit jël nañ leen maltraité maltraité leen yaa ngi dégg ah def leen affaire yu métti ñu dee dans des conditions atroces foofu la yërmande jeexee amatul amatul lu nga xamante ni dañ dañ ci am ay état d'âme quoi mooy de mon point de vue li am moom mooy ku ci am loo xam bul nekk dans les coins et les recoins des quartiers di mettre sa bopp en danger di expliquer gauche expliquer à droite woote fii téléphone wax fële li am importance li la mën a dimbali seetal la mooy nga dem police li la mën a protéger pour pour sa propre sécurité mooy nga dem police nga joxe information yi nga yi nga xam bu fekkente ne nag dem nga police nga expliquer li nga xam ñoom ñu ñoom ñoom ñu ñu vérifier ko gis ne ok information bi amul njëriñ yow yow tu es dem nga def li la war en tant que citoyen mais tant que defuloo lolou quand même il faut savoir que defuloo li la war surtout par rapport à un individu bu nga xamanteni il est décédé té yow da nga xamanté won ak mom ngeen bokku di liggéey di def sen business c'est en fait ça la la la la vérité wul ku ci nek nek ci sa bir koñ di di di di ñaanlu euh, na ma sëriñ bi ñaanal ak loolu dossier bi li am amna ba paré les les preuves ont été déjà réunies amul sëriñ bu bu mën a fexe ba dëpp dossier bi parce que mënoo dëpp xelu sénégalais yëpp en même temps koo dëpp xelam dina am keneen ku ku topp dossier bi donc quand même à un moment donné il faut que voilà on qu'on raison garder quoi les gens yi si xam dara ñi xamante woon ak Aziz xamante ak Waly di leen fréquenter di dem di naan ataaya ci këram di fa añee wala ñu fay di togg Aziz il avait des ennemis qui sont capables de faire une, telle chose donc ils n'ont qu'à aller essayer de collaborer avec la police pour que quand même dossier avance bien que nous avons une enquête bi parce que information informations, police même si les informations d'une du tey dinañ continuer enquête nous calmement instruire dossier bi ils ont du béton ils door du procès déjà mais néanmoins ku ci nekk bul xeeb sa information soit da ngay jéem a nekk di di di di di du côté du bien wala nga nekk du côté du mal affaire bi amu am choix la choix la c'est un choix personnel man xam naa dara waxuma ko rek jàppal ne maa ngi ci côté mal bi je suis je je je suis dans le sombre maa ngi ci côté bu lëndëm bi am naa lu ma xam damay dem ma waxi ko pour être du du du du côté de la lumière ma ma ma dem non seulement seetal sama bopp mais sama diggante ak yi doomu aadama yi sama diggante ak sénégalais yi sama diggante ak Aziz ak Waly ma dem wax li ma xam bu boobaa su ma tëddee dinaa nelaw te bu boobaa je suis sûr que dinaa nelaw parce que xam naa ni le fait que wax naa ba pare des gens ils n'ont plus intérêt à aggraver leur crime def nañ double crime mais tant que waxuloo troisième crime mën na ñëw parce que parce que le fait que nga yéex a wax mën nañ la éliminer vite fait Sénégal bari na affaire ay waxu agression ay waxu accident bi kenn xamul fat fat mun nañ maquiller benn truc ah ne dafa daanu ci étage bi wala wala wala oto daf ko fël wala wala dañ donc mu ngi noonu je pense que répondre na ci question wu salaam ah. Waouh, waouh, répondre nga ci je les remercie. Bah, remercier bu baax di ci am jàngat bo xamné dafa melni da nga né détail bu mu bu mu lu mu ndaw ndaw ko xép mën arranger enquête bi merci beaucoup. alors benen question bi am damay def une période de cours deux questions laa les poser après ma wati. bi si njëkk dafay dem toujours à l'envers le sens de la première question par exemple euh, mbir am ma dégg ci ko xamné xeyna xamna ko alors pour dem setal koku wala may dem vers l'information bu indee ba sama diggante kooku am ñagas-ñagas wala tiraillement fan la wara a ag ba tax ma wara a alerter la police une moy moy moy deuxième question bi alors ah, troisième question et je descends moy que ni est-ce que erreur de communication mën incriminer nit erreur de communication est-ce que mën incriminer nit waaw je pense que question yi doy la maa ngi ziarat ñëpp di wax ne salaamaaleykum merci Oke, salam sakit na masalah. Ya umum. Minggu gue wax gue ada nge ok sih saya question yi dem Aba di la tontu man am na loo xam ne sax dinaa tontu gue. vraiment Masalah. Aba. salaam moom dégg nga ko moom ndax moom ay question mom nii la koy nii la koy tegee rek dem xam naa bu fi góor yàlla nekkoon moom ba tey nee na la maye leen ma ko ay kër kon nag may leen kër yu salaam salaam moom macha allah waaw fi ngay rootee moom baax na lool macha allah te wax dëgg yàlla nit ku tee la quoi xelaat nag balaa mu lay posé question sax day xelaat quoi mais man li ma ciy rek parfois erreur erreur benn erreur day am ci ci ci ci li nga xam ne mooy mooy mooy nit yi nga xam ne ñoo nekk ak Aziz Dabala comme ni ko Baye Laye waxee quoi erreur bi am mooy bay Laye wax junj na ko fii chaque jour chaque jour chaque jour yaakaar naa nee na nit bu fekkee ne yàlla dimbale la la nga am loo xam ci lii demal nga déclarer sa bopp balaa gars yi di la topp ne bi ko waxee ba léegi. gars yi bàyyi wuñ ci xel quoi mais lu am important moo nekk noonu te te te xoolal lu ñëpp di xeeb la wala bu fekkee da nga koy ragal lool loolu moo sécurité ci yow quoi parce que yow boo ko xasee wax rek yaa ngi am sécurité quoi parce que gars yi dañ lay bàyyi xel bu baax a baax ne yow am na loo xam loo xam ne yaa ngi jéem a camoufler sa bopp pour nga pour nga pour nga rawale sa sa sa quoi te gay yi duñ la seetaan n'est-ce pas pa ce pas n'est-ce pas léegi nag euh, Salam comme li nga wax noonu comme. Euh, su ma déggee sa sa wax comme Abba nga ko posé naa bàyyi Abba mu tontu la après man tamit dinaa la ci wax sama xalaat quoi ok Abba merci. waaw waaw Jo cest euh, communication euh, looloo waral fu chaque chaque jour am beneen wax bu bees boo te waxoo ko woon au premier moment loolu moo waral. nit ñi war a diriger wu vers la police parce que ñoom boo demee toog dinañ la taaj dalal la wax la calmement ne la yaa y rien lu nga xamante ni ça ça presse rien ne presse tu réfléchis ñu comme ni mu amee parce que nit bu waxee dëgg dëgg boobu noonu du du du saa yoo ko yeewee def ci ñëwaat mm-hmm. mais mais effectivement euh, erreur de communication Google na pas ba Google dugal na nit ba parce que ah. nous ñëw être face à des officiers de police judiciaire nga wax leen ne leen football. le lendemain nous convoqué waat la laaj la nga ne non dama c'était vert mais quand même ñoom dinañ ne kii dafa kan la yàpp dañu naan kii que ne yow kan nga yàpp magum jëmm te loolu en plus moo waral liñ doon wax sànq le fait que ñuy entendre mineur ñuy am benn nit ku nga xamante ni euh, day nekk un parent proche soit un parent de premier degré papaam wala yaayam soit kenn ku nga xamante ni en tout cas euh, magam ma grand frère am wala grande sœur en tout cas une personne majeure bu nga xamante ni mën na assurer wu à ce que question yi ñu koy posé mu mën ko ko leeralal voilà moom moo répondre déjà xalaatal tey ñu war a un mineur nan xoolal loolu num compliqué ku nga xamante on est même pas sûr que li muy wax mu ko rappeler wu et pourtant et pourtant il faut il faut que cette audition soit prise donc amul amul ku ku ku mën échapper loi à part mu nek ku nga xamante ni xel mi neexul te mu te mu te mu am ci ay preuves yu leer que ni xel mi neexul même bo ñëwee nga initier ay documents du dina am un un un psychiatre bu nga xamante dina vérifier loolu pour mën ko confirmer wala mu infirmer ko donc juste pour wax ne yoon yoon fawul ku nekk sa bopp koñ nag di foo xamal ne yow sa bopp ngay fooyee rek mais bés bu yoon ne teel ci sa kaw di nga xat di nga rëccu le fait que nga waroon dem vers la vers la justice au lieu ngay xaar ba justice bi ñëw di dal sa kaw loolu laa am ci peut-être réponse ci question boobu. waaye allah. oui macha allah eh, moo tax. Euh, merci beaucoup leer na macha allah. mais euh, fi mu doon waxee problème mu xale. waxee ko woon ci entre euh, Maguette xale la pour mu bañ a dem à la police non non dama ko waxee juste comme diggante Aziz ak Naboulaye xeeb biñ koy xeeb ba peut-être duñ ko. wax yenn problème yi moom mu ñakk xam ay passeport desoon na fële moo ngi dégg ay Aziz moo ngi demandé passeport am peut-être yooyu déggu ko woon maanaam foofu laa ko doon leerale daal mais du woon comme mu bañ dem police wala tollul pour dem police non non non du woon côté boobu. Ah, mm-hmm. police police xébul xébul ben détail hein police bu xeeb détail police même bo démé nga nga wax leen lu nga xamante ay ay ay ay ay c'est c'est euh, purement change ñom ils vont juste vérifier comme que lolu leen sen liggéey sante nañ dem ñu vérifier information bi bu ñu creuser ñu xool xamni xamni li ya y a rien ils vont ils vont juste laisser cette piste tomber ensuite ñu dem continuer fañ nekkoon donc, il n'y a pas de risque à ce qu'un individu se dirige vers la police, pas de risque si si l'individu a des choses à se à se reprocher il y a cinq ou six individus qui peuvent toujours parler ces ces gens là mën nañu xëy un jour wax donc police xam yow donc yéegoon nga parce qu'ils vont citer des noms Ils vont téye ci casolu, bi loolu dafa métti dafa métti am un moment donné ils vont parler même bu dee waxaguñ nii parce que ba tey xamuñ la moo nekk ci PV bi loolu aussi il faut le souligner il faut il faut faut il faut que man du ma accepter nekk ci nekk ci biti ba pare di tiit parce que am nañ wala waxuñ man damay waaxu ma dem police ma jox leen information yi ma xam de toute façon je serai honnête avec mois même et je serai honnête sama diggante ak yàlla je serai aussi honnête sama digganteek ak suma xarit bi nga xamante ni dañ ko rey rey bu ñaaw te xam ni man aussi mun naa subir sa même sort loolu dafa am importance que ñoom ñu ci bàyyi xel que nit ñi aussi ñi ci xam dara wala ñi nekkoon des amis avec Aziz Dabala avec Wali ah ñu ñu am lu ñu xam ba pare euh, ñu bëgg juste toog dans leur coin parce qu'ils sont en danger loolu en danger Nous sommes en danger parce que Taïman je suis un malfaiteur je nit wala ou mais mais en tant que est-ce que j'aurais un problème pour pour faire la, même chose pour pour faire un autre crime juste pour pour, pour sauver ma peau ah xamuñu de parce que su fekkoon je suis assez honnête pour dire que ok je ba vais pas encore faire un autre crime honnêteté boobu bu fekkee nekk na ci yow kon cela veut dire que ni yow sa bopp di nga waaxul sa bopp ba police nga ne leen ah man parce que maa def lii wala man maa def lu lii mais tant que demoo police ça veut dire que yaa ngi yow bëggoo ko la jàpp te ku bañ ko la jàpp di nga éliminer toutes les preuves disponibles yi la mën a dugal. loolu la loolu la nit ñi war a xam muy góor muy jigéen nag bul nekk góor wala nga wóolu sa bopp wala man délinquant laa woon ba tax nga wóolu sa bopp ba tax nga ni ok soxla ma protection loo loo bari dool bari bari bari doole bu la deux personnes trois personnes quatre personnes songee xeex bay métti rek mais ils pourront avoir le dessus sur toi donc ku ci xam demal nga wax ko waa police ñu lijjanti problème bi lii problème national la Sénégal yëpp ñoom ñoo koy nakaru donc les gens n'ont savoir raison garder ku ci ku ci ku ci am loo xam wala nga xam ku xam xelal ko ne ko yaa ngi en danger man mënuma la protéger police moo la mën protéger va dire ce à dire police jël en compte dinañ la jox ay numéro de téléphone boo gisee loo xamul nga wax leen bu la nit woowe di la ay waxu lu lu jëm ci ci dossier bi transmet nous son numéro jox jox ñu numéro bi ñom ñu def sen liguey vite fait en une heure deux heures de temps il retrouve le gars ñu laaj ko la motax nga wo telle personne qui est considéré comme un témoin par la police nationale la mo la permettre nga koy wo diko di am lokoy sur un dossier en cours bu les gens vont s'expliquer mu jeex bo ku ci dem police wax li nga xam kenn dootul oser sax di woote sa numéro téléphone kenn dootul oser di la croiser ci koñ yi di am lu lay poser ay question mais tant que demoo police yaa ngi en danger yow mi xam dara ci dossier bi tant que demuloo police jàppal ni mun nga dem armé le d'un jour au lendemain wasalaam अच्छा Ну, никого не вай. Belai wala Menti wala Kenzo wala Belly. Dana yi ngelaw de. Yéen mi dégg yéen mi dégg wala. wow grand eh, bi. ziar naa la. Hmm, delloo ziar. Baye wax am lool j'ai bien écouté dafa am lu am solo lu ma bëgg souligner ci li nga wax. nga defkatu njombe yu mag yi dañu am benn stratégie. mafia bi ñoo ko xam bu seen bagage nare toj dañ naan nañ utiliser la stratégie de la terre brûlée maanaam seen ginnaaw lépp la ñuy raxas. dañ koy raxas ba mu set wecc. stratégie de la terre brûlée kooku stratégie utiliser nañ ko sax ci guerre yi. waaw ndax ndax di stratégie teg lu tax police yu Sénégal ay ña leen ba ñu demee Saint-Cyr Paris di fa jàng ñoom ñoo duma tubaab yi moo tax dañoo xarañ xam yoon bi te loolu yëpp foofu la fekk baax ñoo ko daan jàngale les stratégies de napoléonienne de Napoléon dañ ko jàngale ak yeneen ak yeneen kon ci ñoom la fekk baax te yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp policiers yi xam nañ ko ñu ngi ciy waaj mais nag victime yi ñoo ci dul xam dara ñoo ci xam dara te xamuñu ne loola euh, c'est plus probable. pour que mu am extrêmement probable waaw loolu moom mooy livre de chevet band yëpp ku ma nar a tojal samay mbir ma jege la jëlee la fi tegee defee. bu gaaw. waaw peut-être Sénégal soppeeku euh, corps militaire yi ak policiers yi am na ñuy doxee léegi dañu xarañ mais chez dañ <laughs> dem ah, mën a dénoncer dem dem tey faut avouer à moitié pardonner bu waaw boo ca waxee la nga xam buñ la tataqaree sax bu dee yàlla as la conscience tranquille parce que da ko xam nga wax fa nga ko jëlee. ñu mhm. vérifier pare ne la demal mais mënoo bu ëllëgee nag del la ñëw remontrance rek la verbal bàyyi la nga dem mais bu dee dañ nga ca taqi buñ la ciy àtte itam dénoncé bi nga doo dénoncé sa bopp da ciy joué. effectivement da ciy joué de ce fait buñ la naroon dóor par exemple quarante ans ah, nañ la dóor par exemple vingt ans. avec mhm. possibilité de liberté xaw ma lan la au delà de dix ans. oyofal la ko yooyu yëpp ci nekk. Mm-hmm. da ci laxasu yooyu yëpp mais loolu duñ ko xam parce que nit ñi duñ génn di leen ko waxtaane di leen ko wax mm-hmm. kon du leen ko wax du leen ko wax léegi ñoom dañuy tëju seen roq rek di ñaan yàlla nag tey làqatu waaw te xamuñu ne ji nga entre deux mots il faut choisir le moindre entre ku jël sa bakken te xam nga lan moo ci doy waar grand xamuñu ne nga wax ak nga ñàkk wax au delà de l' affaire dinañ ils xam nañ ne du am jàmm parce que xam nga duñ la may jàmm même bu affaire bi jàllee ba ñu vidé ko mën na ci am même au delà de l' affaire te bu sursaut amee ah dañuy jëlaat affaire bi ñu rejugé waat buñ dee ñee seen avocat xarañ nañu. rejugé waat ok daguma la de eh, Abba. dama déglu gis nga daa mel ni Ababa ah, ok merci Ababa Aba gis nga salaam dafa dugg fii mu posé benn question bu am solo xam nga man toujours damay déglu salaam quoi yaa ngi comprendre damay déglu salaam quoi mais gis nga ñun boromi xel lañ quoi fii nit yàgg na fi dugg di wutlu ko leer. yàgg na fi dugg bëgg ñu wax yàgg na fi dugg di wax lu ko neex di dof dof lu bëgg ñu ñëw ci moom li bëgg est-ce que yéen ngi dégg lu may wax bu baax te Aba démb rek Abakara yow démb rek am na loo fi wax ne ce pas bañ dégg ko ñun ñëpp dem nga ba ne am na wax yoo xam ne même buñ ko xamee di ko wax dañuy kale li nga xam ne mooy euh, enquête bi. ok. te te loolu bokkul ci li nga xamne ne mo nek mo mo nek yoon ci liggey bi motax bu fi nit duggé bëgg xam dara ak wax bo fi mëna indi euh, boy waxé ba pare ñu nek ci panel bi dañ lay déglu ba pare dañ lay bayé xel parce que bu féké da nga ñëw bëgg xam tax nga ñëw wax ak nit ñi ci dal ci teey ci tek comme la fina wax deug yalla nim duggé fi machallah mais man sama xalaat lay wax quoi parce que xomul lu nek ci xelam quoi mais man ma gëna xamné yow la fina Lafina ngi may dégg da nga ñëw ba tay comme ni nga ñëwaaté woon pour bëgg lu la leer quoi dama bëgg limay wax ni bu ngeen ak man Lafina dafa ñëw ba tay pour bëgg lu ko leer man sama gis-gis. maanaam bi muy dugg nag fekk ma fi woon lan la wax exactement lan la laajte. Hmm. non non laajte wut dafa ñëwoon di waxtaan comme ñëpp nu ñuy waxtaanee di wax xelam di wax xelaatam quoi mais comme comme instant bi nii may wax ak yow man li ma gis ak li ma analyser si laafinaa waxam bi yëpp maanaam ñëw na pour bëgg lu ko leer. ñëw na ak xelam ak ak ak ak boppam bu lëndëm comme nu fi ñëwee woon bu njëkk mais dafa am différence parce que bu njëkk bi mu ñëwee woon dafa ñëwoon ak ak ak doole mais yoon bi ñëw na ak dal mais ba tey bëgg na lu ko leer mais dañ lay xamal dañuy xamal waa man damay xamal waa panel bi yëpp comme ni ma meloon a ah. am na ko bind si suuf nee na moom ci ah. wax wax na ko sax dama dafa bëgg. xam lu leer. waaw moom wax na ko dafa bëgg xam lu leer quoi ba tey ba tey li mu waxoon noonu quoi mais ak ni mu ko waxee woon bu njëkk ak ni mu ko waxee yoon bii du benn quoi xam nga bu njëkk moom def ne naa ñëw exactly ci moom même bu ma ko mëntu wax tur ma wax ko quatre vingt dix pour cent ma ne ko non man mosuma doxee noonu mosuma doxee noonu te wax dëgg yàlla fii mosuñ fi nekk di wax sax. bay tudd turu nii walla nangam mais bu fekkee ni nit ki da am noo ñëwee ci live sooy wax nit ñi danañ la déglu mais am na hmm. nooy ñëwee ci live booy wax kenn du la déglu dëgg la fii la ko fekk góor yàlla ñoom ñëpp fii la leen fekk Baye Laay mii fi la ko fekk ñuy wax ñi muy wax ñi di ko déglu di ko déglu mais bi nga xamee ne ni wax na ba wàcc ba dem wax dëgg yàlla ñu ngi koy remercier parce que ni mu ñëwee woon ak ni mu ñëwee yoon bi mais ba tey la fina man comprendre naa la bu baax a baax am na looy loo lu la lu la jaaxal comme nu mu jaaxalee ñëpp nag mais nag ma wax la ba tey moom wax dëgg yàlla fi ñu ma taxawoon laay taxaw ba tey man moom nee naa li ma doon bañ loolu laay bañ ba léegi te si loolu laay continuer te waxu salaam bi rek laa ñëw pour confirmer ko quoi salaam euh, benn affaire rek laa lay xamal mooy gis nga sa question yi man toujours dama si jàng quoi sa question yi toujours dama siy jàng ok salaam dafa bëgg a yéeg dafa mel ni de man est man est ce mun naa ko pip ami mu wàcc bàyyil mu wàcc non Abba Abba Abba bàyyi ko espace bàyyi ma ko espace. non la fay salaam yéegal. waa tax attends gisuma ko woon. Mm, waaw nee na non après mu ñëw mu ne non man mënuma understand salaam da ngay yéeg waaw. yow zo bëgguma yéeg de dama ni zo zo zo dama laa woo trois fois rek noppi mais bëgguma yéeg de sinon damay def demande ne vous inquiétez pas maa ngi leen di déglu aywa yéen a ngi wàcce ababa bu karaté amoon na fi so amoon na fi place na yéegaat bëgguma yéeg jaajëf waa. waaw mais man tamit bëgg naa la laaj quoi parce que da ne zo dafa am lu ma doon wax nga ne zo. man tamit dama bëgg comprendre wala. non yow li ma lay mentionné est-ce que bëriwul ci ci kër gi. fu ma la gis tudd la wala de dëgg la. waaw loolu rek man léegi dama laa bëgg a poser man tamit sama question ba xam xam nga déjà man musuma musuma musuma inquiété wu ci ci nit quoi mais sa gis-gis man man mm. dama bëgg xam quoi parce que xam nga ñun ñëpp ñoo bokk nekk ci kër gi quoi mais. man tamit du ma nangu di di di di di bloqué benn affaire wala may bloqué nit si benn affaire mais bu nit ñëwee fii bëgg xam nekkul nekkul ne comme déjà da nga da bëgg a ñëw am say information ci panel bi bëgg a wàcc dem sa yoon comprendre nga te am na loo xam ne ñun ñëpp boroomi xel lañ ñun ñëpp boroomi xel lañ dañuy dañuy dañuy xelaat te dañuy am dégg-dégg tamit boo bo bu fekkee ne nit da nga am lu la réer nga ñëw si panel yéeg pour bëgg xam yéeg ñëwaat yéegaat pour bëgg a xam alors man loolu it euh, dama dama bëggoon ñu waxtaan ci quoi te xam naa ne man sama jëmmi bopp man nekkul ne nit bu fekkee da nga am lu la lëndëmal pour nga ñëw ci panel bi nekkul fii nga koy xamee te laafina laafina beneen yoon pour ma wax la euh, laafina sa ñàkk xam bi nga ñëwee fii ci panel bi ba wane ko boo ñëwaatee ba wanewaat ko dañuy xam ne xamoo mais boo bëggee boo bëggee boo bëggee xam ñun nu ñu def noonu ngay def da ngay da ñëw nekk si panel boo amee sa question yo posé nga posé ko soo amee loo xam ne yow da nga koo war a wax nga wax ko su boobaa ñun luñ ci xam dina la tontu mais li ma lay li nga xam ne moom mënu ma koo nangu te lu ma la waxoon du ma ko nangu mooy ak wax boo ma mun a wax man mënu maa dugg si domaine domaine domaine bi nga xam ne moom laa a bañu la léegi yow salaam yow loolu loolu loo si xalaat yow.

mu ne dafa bëgg a yéegaat ci panel bi ma ne ko si lan mu ne ma parce que dama bëgg yéeg mais dañ ma bloqué ma ne ko non panel bi moom panel pour ñëpp la mu ne ma yaa ma bloqué kon ci par erreur yaa ngi léegi bi ma waxee loolu ma ne ko ok kon baax na xaaral ma wax ambassadeur mu débloqué la ma wax ko ambassadeur mu débloqué ko ma expliqué ko ambassadeur ma ne ko dafa bëgg yéeg ci live bi xaw ma lan la bëgg a wax wala xaw ma dafa bëgg a leerlu. mais bu ñëwee nañ ko déglu bu ñëwee na nga wax gars yi bu ko kenn tontu nañ bu ko kenn dagg nañ ko bàyyi mu wax ba pare peut-être mën naa am lum ñu bëgg a wax wala peut-être mën naa am dafa bëgg xam après ambassadeur na ma d'accord après moom bi mu yéegee ah ñun ñëpp dañ koo déglu mais man sama wax laa la wax sama analyse man si sama bopp man maan xam naa ne yow laa fi xamu dara dara dara dara mais nak bu fekke na xamoo ba pare nga bëgg a ñëw pour pour xam waxuma da nga ñëwé benen côté wax dëgg yàlla ndax nit ñi dégglu nañ la remercier nañ la man bokku na ci ñu la remercier mais man fuma lima la waxon première fois lo la lay waxat ba tay quoi wa man lo la koy waxat ba tay waaw léegi nak si lo loolu laa la laaj quoi yow loolu si gis <laughs>

bu fekkee doo wax dëgg it am na peut-être ñu lay gëm am na peut-être ñu lay gëm man bokk naa ci ñi la gëm pour te dire hein deuxième chose bi mooy alors bëgguma woon sax cité turu Laafina siste la maa ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar moom soxna la maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér dafa ñëwoon am lu ma xam lépp fi la ma fekk après mu wàcc mu dem il s'est passé des choses ci suuf loo xamante ne que peut-être mën nañ ko ba ngay yégal ci kaw I poussé ko à ce que mu ñëwaat mais batay da je pense que depuis le départ dama adopté une mhm. position très neutre man je suis dans la neutralité avec la modération man am ci neutralité xamni gëmuma mais tamit weddiwu ma dé damay wër comme mom ni muy man non alors na ma ci kaw c'est pas le bon moment pour ma y a des ces choses qui xam c'est personnel ci nit ki mom yéeg na wax na li nga xamné nek que le meuna yem d'accordal nañ la d'accordal nañ ko et remercier nako comme tu as bien dit man sama analyse personnelle c'est mon analyse personnelle garde nako pour man bi may nekkee ci panel bi à chaque fois japp na ni peut-être mën naa ci rebondir rebondir na ci mais par des questions parce que par mesure de mhm. prudence accident la main la bañ mo daal ma ndax boo dee xool tuuru ki nga xamante ne que ñu ngi koy tudd ba ba nag ni si bu fekkee ni wu ci takkewu ci ñun ñu ngi koy jéggalu mais moom laa fi ne moo njëkk a tudd tur peut-être moom tamit par par erreur de communication la ko defee te ñu ngi koy koy comprendre parce que elle était déboussolée bi mu fi dugg donc le débat mhm. c'est pas la fi le débat c'est pas ñi li ngi nekk di wax nii je pense que parenthèse boobu tëjoon nañ ko dama la woo trois fois da nga dekkoon ci logique boo xam ne kenn du la yónni yow Zo kenn du la yónni pour faire passer son message yow tu es là pour ton pour ton propre message ba pare nga ànd ci ak ñi la gëm ñi la gëm ñi la gëm nga ci àndal maintenant yow gëm nga téye sa gëm <laughs> man su neexee ma gëm su euh, neexee ma bañ a gëm euh, ku nekk ak son gëm mais mais weddi ma tamit weddi ma tamit te te te bëgguma sax ñuy sori foofu ok dama am lu ma bëgg wax da nga wax bu am solo no da nga wax waa xara xara da nga wax bu am da nga wax bu am solo no xara xara da nga wax bu am solo no xara da nga wax bu no dama lay wax ben baat ñu ko continuer da nga am wax bu am wax bu am ok da nga am wax bu am solo da nga am wax bu am solo bo xamne da nga ma ko wax moy kenn duma yoni ma waxatal la ne la barki muhammad rasulillah sama yaay ak yàlla bu ma gisanteeg yonent bi sama yaay bu fekkee ne dama xamoon ci moom dara mu def lu du toll ni liy ñuul ci we ci problème bi maa ngi lay waatal ne yàlla bu ñu bu ma ko gisaat ci guddi bi ma nekk su ma xamoon ci moom dara lu toll noonu ci panel bi laa koy teg te ba ma dalee wax ba léegi kon yéen a may déglu te mais tey tey moom ah dama bëgg nga dégluwaat ma bu baax a baax te gis nga ma wax la benn affaire barki alxuraanul karim maa ngi liggéey liggéey boo xam ne nii sama xel nekkul sax si ngeen di wax nii barki Seydina Mohamed nee naa la duma ma dellu ginnaaw duma dellu ginnaaw ci lu ma nekkoon te nit bu ma mën a delluloo ginnaaw amut dama gën laa leeral gën laa leeral ma waxaat la mu gën a leer barki sëriñ tuuba ak sama voyage bi ma jël su fekkee ne am naa lenn. lu may nit di wax man man wala nit di ma yónni man man yab man yab man yabu ma yàlla yabu ma sama bopp baatu yónni bi nga tudd noonu soo kenn du la yónni dama lay wax na la nag tey nga gën koo confirmer man kenn du ma yónni te ma wax la benn affaire panel bii nii ma nekk nii tey bi nga xoolee sax coow bi mu commencé am damaa wàcc dem toog ci suuf billaahi ku may saaga ndey du ma fayu ku may wax lu ñaaw duma ma fayu lii moo ma intéressé te si lay dox barki muhammad rasulillah ak yalla bu ma ak suma yaay ci goudi la nek suba man na maa ma gis ko mais dama lay gëna léralal né man gis nga affaireu Aziz bi ndé man si lañu dem di wër samay piccoor si lañ may saga. si lañ may wax lu nek aduna bi di ko dégg yeen ngeen ci ak man kon man duma tok fi mukk ci aduna may am lu toll ni cat wé ci information ma diko ko neexal ma gën laa xamal sama bopp tey nga dégg ko yabu man gis nga ma wax la benn affaire salaam peut-être peut-être comme ni nga ko waxee am na loo xam ne da nga koo topp ci wax yi nga xam ne maa ngi ko doon wax te da ngay dugg fii am wax yooyu joxe man sa wax yooyu dama ciy jël di méngale ak li nga xam ne maa ngi ko amoon te muy dëppoo lool moo tax mosoo yéeg di wax même boo ma fekkee may wax boo yéegee boo ne ma daa am lu may joxe damay noppi damay noppi parce que xamul tax damay am benn xam-xam bu may jël ci yow dafa am lu may jël ci yow parce que am na question yoo xam ne boo ko posé ba pare daa am lu may jël mais maa ngi lay giñal ne la sama yaay bu amoon lu ñuul ci wee ci panel bi fii man jo man jo maa ko fii teg kon fu ma fu ma la leeralalee na man du ma nit ku ñuy yónni allahu akbar

yow gëmal sa waxu bop mais bu jox valeur waxu kenn ñun on est avec vous depuis le départ buñ fu joggé dem fenen c'est parce que dañuy dem pour di xoli parce que timit dañoo nek ci enquête dañoo nek ci tester suñu ay talent en tant qu'enquêteur duñu ay enquêteur mais ku hmm. nek ci ñun am nga ben talent d'enquêteur bu nek ci yow moñu pousser à ce que ñuy bëgg creuser di bëgg xam la vérité alors on n'a pas été formé pour ça moo peut-être mën nañ def mën nañ dérouter wala ñu def ben erreur bi moi à chaque fois man je préfère rester sur la neutralité Terreul je suis mon combat je continue le combat yow da nga tàmbali ci benn hmm. logique bo xam depuis le départ yaa ngi ci ne te laisse pas distraire ne te laisse pas distraire gis nga ku yegg ba wax ay waxam ba paré. alors c'est pas hmm. à toi ngay wax nit ñi ki li mu wax deug la de kii non non non ngeen instant bi xam nga lu ñu pour wax ne Zo li mu wax deug la moo ñu mais waxi kenn deug la loolu téyewuñu fi dé. ay nit yeeg ngay mu ngay appuyer waaw kii wax na dëgg kii xamul dara kii xamul non loolu yow taxu la fee toog ñu nit loolu taxu fee toog ñun liñ fi tax a toog mooy le zoo doon wax du début à la fin dëgg la point barre ne te laisse pas distraire zoo man soxna laa dara zoo man mhm. soxna laa te dafa am benn kàddu boo mhm. xam ne man daf may tiital en tant que soxna parce que dañ ne ci alxuraan yàlla mhm. moo ko wax ne ëllëg safara jigéen moo fay bëri te góor gu fay dem jigéen moo la fay yóbbu baat boobu dafa nekk baat boo xam ne man daf ma tiital ci goo xam ne wax dëgg yàlla te baat la boo xam ne à chaque fois panel yi may dem di def peut-être yenn euh, conférence yi dinaa fay yóbbu le message pour au moins peut-être mm-hmm. faire benn déclic ci ñun soxna yi te boo dee xool mbir mi am tudd nañ ci jigéen géey yi am Sénégal yëpp tudd nañ ci jigéen donc il est temps que ñun en tant que jigéen ñu refuser la manipulation en tant que jigéen ñu refuser yenn comportement yi en tant que jigéen ñu refuser yenn bassesse yi parce que boo dee xool à chaque fois suñ ko dee def ñun lañ koy maanaam ci ñun lañ koy jaar même les politiciens ils ont besoin de personnes yoo xamante ne que en tant que jigéen la dañuy jaay seen bopp maa ngi koy jégalu ci kàddu gi mais tout le monde le fait mais jigéen la ñuy utiliser pourquoi il est temps que nag yàlla suñu borom li tax mu ànd ñu fi mooy pour liggéeyal ëllëg suñu yomal xiyaam te lii tax nga koy liggéey fi nga koy liggéeyee de te lu waaye baax baax buñ la yoree ci bàmmeel nga réccu donc pour revenir rek maa ngi koy jégalu parce que maa ngi xaabaabal tey moom wax dëgg yàlla mooy loolu tey moom mooy loolu daal léegi pour revenir ci sujet bi Zo encore toi bul nekk di appuyer les paroles de personne parce que ñun on est là pour appuyer tes propres paroles yow tout temps nag nekk nekk di chercher la vérité de donc yow ne te laisse pas distraire un point un bar point maa ngi jégalu kàddu yi non yow bul jéggulu yow loo wax sax noonu la yow bul jéggulu mais dama lay gën a damay bëgg ngay gën a dalal sa xel zo du bàyyi dara barki sëriñ Touba du ma bàyyi dara te am na loo wax nag nga ne su ma daan wax du ma waat non man daan naa ko def góor yàlla moom ma ci génnee góor yàlla moo ci génnee mais gis nga tey boo gisee journée bi yëpp ma jël loolu dama am lu ma métti dama am lu ma métti parce que xam ngeen tey dama commencé woon benn débat dama commencé woon benn débat gars yi ñu arrêté loolu parce que seen coow boobu moo taxoon débat boobu mu seen coow moo taxoon débat bi mu arrêté mais t'inquiète man du ma reculer salaam man damay focus de man man man awma awma dara dara dara lu may arrière si ginnaaw man jot naa lu nekk dégg naa lu nekk mais t'inquiète loolu bu leen am leen lu leen ci métti incha allah teg li li ah ah, ñu biti dafa nelaw dafa mel ni de. Mm-hmm. Baye Laye. ambassadeur. Ababa. Ah, am na ki xam de. Ok, so est good of war. I'm still la faire live It's Yeah, I think so. Yeah, I'm done. Hana, no, I don't know your time. No, I'm be there yes, I will. Okay, hara hara hara hara hara ya belakang kita. Gitu. Apa yang mau ambil mau mohon. 야, 삼메다 이름이 집으로 줬나 봐. 응? 에미? ambassador mi mana ko dama ci bëgg son de jotuma ko ba léegi attends try ko call ko ba xam waaw soo ko jotul xam naa dañuy quitté ñu bàyyil ko fii moom saa bu yeewoo mu fay ko I think so

See you. Не так, давай. gars yi yéen hmm? xam naa ni waaw xam naa damay tëdd quoi gars yi xam naa naañ joxante daje ah nañ joxante damaa war a jënd nii si kanam quoi damaa war a buuse quoi Dama rabuse dama rabuse si kanam quoi mais xam naa ni su may live nañ jéem a xool dama mën naa ma live ay côté tey dix-huit heures naa mën mën ay dix-huit ah. bu fekkee buuse naa nag fekke fekke mujj ma fekke bougé ma nag waaw dinaa teel a taal live bi waaye bu fekkee damay bougé xam naa ko côté dix-huit heures lay taal live bi wala la may wax waaw cuuraay googu yow la ah, lay mhm. waaw yow moom sa liggéey rafet na yow moom maa ngi nekkoon di surveiller di woon message yi yëpp. gis naa loolu gis naa yaa ngi gàddu géej. man ak man la la Mauritanie ñoo fi nekkoon di surveiller kër benn waay fi nekk Mauritanie ndeysaan. waaw waaw waaw waaw. gis naa loolu gis naa loolu. ah ñëpp dem nañu ñun dañoo fidèle de ñun dañoo fidèle de. defal ndànk xaaral ma gis naa koo xam si ne ab Mauritanie la kooku gis naa ko fan si kër gi quoi. ah waaw kooku aw ah, nekkoon si kër gi. yii kii waa yàgg na fi de ambassadeur. Hmm. depuis le début ñoo fi nekk noonu. Hmm. man dañ maa jàpp man si affaire yi man day la bañ nelaw rek waaw dund ba mu mettee ñëpp a dem ñëpp sa xam nga rafetul nañ musik dégg musik bi saf na musik bi saf na saabu de. ñoom ñëpp ñu dem ñoom ñëpp ñu dem bàyyi bàyyi la fi noonu tër ki. waaw waaw waaw gars yi pour de ay góor yàlla jég saay jég saay dem seen yoon fii ah wàcc ma si kër gi nii may nelaw rek. dana ma rey ko. tapote leen ngeen partager s'il vous plaît. cuuraay cuuraay bu yàq sama nelaw waaye cuuraay. man dangaa bëgg laa bu góor ne. non man de Serigne Touba non. diwul loolu sax xarañi. no, vai que tua lá. Cheia-lhe sua não No. No, Senegal, Senegal, Senegal. Ah. Senegal bu baax suñu liggéey yàq fa faw kan mu yéeg ni apporter et partager dafa naa kan mu non man taay ah. ambassadeur. ambassadeur. waaw. ambassadeur. waaw instant bii nii cinq heures cinq six heures moins moo jot. Mm-hmm. yow est que defoo dara toute la journée dañ lay topp. ah xalaat man loolu man loolu man wax man déggoo man fan yii damay jëkk saay rek lañ may nelaw loo man. Hmm. ambassadrice saa yoo moom sama sama papa dafa ma bërg dafa ma bërgal léegi nee na mu defal lu la neex ambassadeur xamee nga xamee nga la Mauritanienne moom la ma doon laaj ma ne ko kii nga xam depuis le début moo fi nekkoon yàgg na fi de waaw ah waaw waaw waaw waaw waaw mystiquement lañ ko jàpp dañ ma jàpp man tay ba tay moom tay moo da way ba check check di nelaw man fan yi ma ba ba pare amaana de na ngay nelaw ba pare nit ñi di la na Oui, ma chérie. te ñëw wàcc ñun tàmmuñu fi. déedéet déedéet nañ tapoter partage wax leen ñu tapoter. tapoter partage. xam nga tey bu mettee gisoo kenn ñun ñoo fi nekk de dëgg yàlla. Rahman mulu manulung aja